ginnaaw bañ sante borom bi subhaanahu wa taala julli ci yonantaam muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi amaat kontante ak mbégte ñëwaat ak yéen ci programme bi nga xam ne ñu ngi daan ànd ak yéen ci tele bu am solo bi di Muslih TV di nuyu ñin fi fekk ñépp ci kër gi di fi liggéeye ñu mag ñu ndaw góor ak jigéen yàlla yàlla barkeel liggéey bi nga xam ne moom ngeen di def yàlla yàlla sàmm leen sàmm seen njaboot euh, incha allah ñu war a yeen ci yéen ci tafsirul quran mooy jéem a leeral téere borom bi subhanahu wa bi nga xam ne moom la wàccee ci ab yonantaam muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Euh, xam naa euh, tey dañuy tàmbali ak yéen ci leeral lan mooy tafsir ak ay xaajam ak euh, lépp lu aju ci lii ñu bëgg a ànd ak yéen insha allah muy programme tafsir bi tafsir bari na li nga xamante ni rot na ci ay taarifaat mooy ay definition yu bari ci baat bi ñuy wax at tafsiru baat bi jóge ci ñetti xaraf muy faaun wa siinun wa mais baatu tafsir mi ngi jóge ci fi'l boo xam ne ñu ngi ko tëgg ci waznu faala muy fassara fassara yufassiru tafsiran fassara mooy leeral na tafsiran ak leeral leeral goo xam ne buñ fa jógee dara dootul lënt loolu la baat bi di tekk ci langue arab ilmu tafsir huwa tawdihu shay'i wa bayaani maanaahu mooy leeral benn mbir ba pare leeral expliquer lan la mbir moomu di tekki ba mu leer mooy ilmu boo xam ne ihtamma bihi l muslimuun jullit ñi itte woon nañ ko laal lu tax parce que téere la boo xamante ni euh, ci lañ mën a xamee lan la ñuy jaamoo yàlla ci lañ mën a xamee lan la yàlla sant ci lañ mën a xamee lan la yàlla tere waaye ci lañ mën a xamee li wér ak li wérul ci lañ mën a xamee alxalaal wal xaram li dagan ak li aram boroom xam-xam yi nag ci ilmu tafsir dañ ci andi ay firi yu bari dañ ci andi ay taarifaat ay définition yu bari waaye dañuy jël benn boo xam ne al imaamu suyuti moom moo ko andi mooy borom al itqaan bi nga xam ne moo bind téere boobu al itqaanu fi ulumi al quran noonu la tuddee téereem boobu di ci leeral lépp lu aju ci euh, tafsir imaamu suyuti dafa huwa ilmu nuzuli ayaati wa suuniha wa aqaasisiha wa madaniyiha wa makkiyiha wa muhkamiha wa mutashaabihiha nee na xam-xam la boo xam ne dafa yittewoo ci aaya yi lu ko tax a lan mooy mbiru aaya yi lu ko tax a jóg waaye xew-xew yi nga xam ne xewoon na borom subhaanahu wa taala di ñu ko nettali ci alquran waaye tamit leeralal ñu naka lañ toftalee téere bi waaye leeralal ñu lan moo ci wàcc Makka ak lan moo ci wàcc Madina ñu bari nag dañu jàpp ne lépp lu wàcc Makka rek Makkiya lañ koy wax donte loolu mooy li jaadu li wàccu Madina ñu wax ko Madaniya donte loolooy li jaadu waaye boroom xam-xam yi dañ ko tënk ci lu gàtt mooy lépp lu wàcc avant gàddaay bi loolu Makkiya la lépp lu wàcc après gàddaay bi loolu madaniya la donte mi ngi wàcc màkka kon ci gàttal euh, taarif boobu mooy taarif bi nga xam ne moom lañ leen tànnal te mu gën a yaatu nga xamante ni téere bi boo ci delloo dinga ci fekk lii mu wax fii yépp mu ngi ci biir téere alquran mooy téere boo xamante ne bàyyiwul dara maa faratna fil kitab min shay borom subhanahu nee na bàyyiwuma ci téere bi dara dara dara lenn kay mooy xew mooy ñun ñu xam ko walla ñu ñàkk ko xam waaye téere bi téere la boo xamante ni euh, lu nit di gëstu rek mi ngi ci biir téere bi ak euh, aqsaamu tafsir buñ demee ci baat boobu ñuy wax sànq fassara yu fassiru tafsiran dañuy fekk ni dafa am ay xaaj yu baree baree bari moom tafsir euh, bokk na ci xaaju tafsir yooyu mooy asalibu tafsir lil mufassirina fi tafsir asalib arbaa dañu am ñeenti uslub ñeenti façon yi ñu koy defee wan wala ñeenti soobuwaay yoo xam ne moom la ñuy defee li nga xam ne mooy firib alquran am na at tafsir at taxlili am na at tafsir al ijmali am na at tafsir al muqaaran waaye am na at tafsir al mawduci bu ci nekk mu nekk lu ñu waroon a mën a détaillé mën ko yaatal xëy na bu nu amee amaatee yeneen jotaay yu gën a leer yu gën a yaatu wala temps bu doy incha allah ñu expliquer lan mooy xeetu tafsir yi euh, comme tey dañu ñëwoon pour présenter leen matière bii nga xamante ni wala euh, programme bi nga xamante ni am na solo lool ndax mooy jàngat téere borom bi subhanahu wa moo tax mënuñu leen a andil taarifaat yi nga xam ne moo ci rot yépp ndax du xaaj du jeex léegi nag ki nga xam ne moo war a firi alquran dafa am ay charte yu war a daje ci moom pour mu firi alquran kon kiy firi alquran ki ñuy tuddee almufassir ki ñuy tuddee almufassir du sama classe gi nag ndax sama classe gi ñoom charx la ñuy def wala tawdiix la ñuy def mais dafa am ñu ñuy tuddee ay almufassiruun almufassiruun ñu mel ni ibnu kasir mufassir la ku mel ni tabari mufassir la ku mel ni uh, qurtubi mufassir la ku mel ni albaghawi mufassir la ba ci ñi nga xam ne sax uh, uh, yàgguñu noonu mel ni ay mutawalli shaarawi ñooñu ay firikat lañ wante dafa am ay charte yi daje ci ñooñu pour ñu tuddee leen al mufassir charte yooyu nag bari na lool mais mën nañ la ko tënkal ci yii di ñëw pour ñu ne diw firikatu alquran la bokk na ci charte yooyu mooy sixatul ictiqaad sa pas-pas dafay wér da ngay am pas-pas bu wér ci li ngay gëmee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam beneen bi mooy atajarrut anil hawa nga summeeku ba set wecci ci bànneexu bakkan maanaam téere borom subhaanahu wa taala boo koy firi doo ci dugal sa bànneexu bàkkan doo ci dugal tamit euh, pour faj ci sa mer maanaam am koo ci bëgg a waxal tax nga jël aaya bi jëfandikoo ko pour firi ko ci li la arrangé déedéet da ngay summeeku ci li nga xamante ni mooy bànneexu bakkan bi du la jiital waaye danga koy def te borom subhanahu wa rek tax beneen bi mooy an yabdaa awalan bi tafsiri al qurani bil quran mu commencé ci firi alquran ci alquran parce que alquran di nga gis benn aaya boo xam ne beneen aaya moom moo koy firi moo koy leeral kon loolu tamit bokk na ci charti kiy firi alquran ba nga am benn euh, dayo bi ci alquran il faut nga dajale charte yi nga xamante ni moom la ñu wax lu mel ni adawaul bayaan bu Muhammad yi nga xam ne benn mauritanien la moom moo ko bind Euh, moom mi ngi firi alquran bil quran nga xam ne tafsir bu ama am solo la bu rëy rëy boo xamante ni ab africain moo ko def loolu day wane ni rek desuñu ginnaaw ci diine ji ginnaaw bilaal ba tey ñi ngi am ay jàmbaar ci diine ji ñoo xamante ni ay africain lañ walla sax ay nit ñu ñuul lañuy doon yàlla yàlla fay leen ci seen liggéey yu am solo yooyu Euh, bokk na ci ba tey ci charte yooyu noonu mooy mu nekk waajoo xamante ni dafay dégg langu arab déggin bu jaar yoon déggin bu jéggi dayo ndax alquran dafa bëri ay baat yoo xamante ni dégg arab tuuti rek doyul pour nga xam baat yooyu waaye dafa laaj nga dégg an naxu wa sharx nga dégg albalaagatu wal adab ilmul maani wa ilmul bayaan wa ilmul uh, uh, ilmul uh, al muhassinaat al maanawiya yëpp da ko war a xam muy ilmul balaaga ak lépp lu ci aju ci ñetti mabaxas yooyu ilmul badee ak ilmul maani ak ilmul bayaan waaw ñett yooyu dafa laaj borom firikatu alquran bi mu xam loolu firikatu alquran bi ginnaaw charte yooyu ñu la tënkal yu bari la am na aadaabul mufassir firikat bi dafa am ay teggin yi mu war a làmbool dafa am yoo xamante ni ginnaaw charte yi mënta ñàkk ci moom bokk na ci yooyu mooy xusnu niyati wa sixatul maqsad mu am yéene bu rafet ci firi bi muy firi alquran yéene bi mooy damoo koy def rek ngir jëmmi borom bi subhanahu wa taala waaye defuma ko ngir inter defuma ko ngir ñu fay ma ci walla ñu tagg ma ci walla nangam ak nangam ak nangam dama ko def ngir yéene bu sell am ci jubluwaay boo xam ne bu rafet la ba tey bokk na ci teggin yi mooy xusnul xuluq mu nekk ku rafet jikko xam nga alquran dafay wax a tamuruuna annaasa bilbir wa tansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitab afala taaqiluun ndax dangeen di digal nit ñi lu baax ba pare fàtte seen bopp naka ngay jële alquran di ko ba pare mbooleem li alquran di tere yow yaa ngi ci mbooleem li alquran digle defoo ci dara kon yow bokkoo ci ñi nga xam te nga pour ngay firi alquran bëri na ñoo xamante ni ñoo fi daq jël aay laa taqrabu zina laa tashrabul xamra bu naan sàngara bu leen njaaloo kaza kaza bu leen te buñ génnee yi ci gën a ngande ñoom ñoo koy def loolu bokkul ci aadaabul mufassir beneen mooy al imtisaalu wal amal da ngay am ay jikko yu rafet taqoog li la yàlla sant bàyyi lim la tere ak jëfee yi nga xamante ni ndigal la yu ñëw ci alquran waaye bàyyi li nga xamante ni mooy tere li nga xamante ni dañ ko tere ci alquran beneen mooy booy firi nag nga ànd ceeg dëggu nga ànd ceeg dëggu mooy wax aaya yi ni ko borom bi waxee ni ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee dafay dal si sa kaw danga koy waxee noonu donte dafay dal si say wayjur tamit da nga koy waxee noonu ndax borom bi subhaanahu wa taala moom moo ko waxee noonu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ba mu ñëwee màkka fekk fa trois cent soixante xërëm te ay waaye juróom yu góor bokk ca ña leen di jaamu daf leen a tudd wax ne yii ngeen di jaamu yépp ay caaxaan la mënu leen a jëriñ mënu leen a lor donte ci seen kaw lay jëm beneen bi mooy pour nga bokk na ci tegginu firikatu alquran mooy atawaado wa leynul euh, aljanib nga nga nga wàccee sa bopp nga nekk nit ku modeste nit ku suufe nit ku wàccee boppam du nekk nit ku rëy du nekk nit koo xam ne lu ñu ko wax mu gis boppam nit koo xamante ni dafa mën a xeet nit ñi déedéet kooku du nekk ki nga xam ne firikatu alquran la laa budda mu nekk nit koo xam ne mutawaadi la dafay suufeel boppam dafay wàcceel boppam ndax yonente bi alayhi salaatu salaam nee na képp ku wàccee sa bopp yàlla yëkkati la waaye kuy yëkkati sa bopp yàlla dalay wàccee ba nga wàcc kon bokk na ci firi alquran mooy nga am dignité yow mi koy def doo nekk nit koo xamante ni euh, da ngay nekk nit ku wayadi nit koo xamante ni kenn respecté wu la nit koo xamante ni da bëri caaxaan trop da nga bëri mbalak trop ba lu nee lu neex waaye mu mu wax la wala lu neex waaye mu def la loolu bokkul ci li nga xamante ni moom mooy Euh, adabul mufassir kon euh, incha allah loolu mooy introduction bi lan defal ci euh, tafsirul quran bi nga xamante ni moom lañ bëgg a ànd ak yéen ci télé bu am solo bii di Mouslih TV yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp yàlla yàlla barkeel jotaay bi hada wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wassalaamu aleykum wa rahmatullah wa